dañoo bëggoon a teewlu tuuti si xaban Mbàkke ñaanal mbooloo mi ngir jëm si tuwaat bu ñëpp tàllal ñëpp tàllal seen loxo mu ñaan mu ñaanal aajo yi

danoo bëggoon salaamaaleykum wa rahmatulah képp ku teewlu li ñu bëgg a wax ni rek yàlla nga làq ngërëmal Sëñ Tuubaa fi saas dafa amoon lu tuuti luñ bëggoon a luñ bëggoon a leeral sëñ bu soobee mii toog ku ko xool sa yaram war naa daw ndax ba ñu talee jàng xaside yi ba léegi fii mu toog de jóge fi mu durus rek sëñ Xaban Mbàkke avant muy jóg coow li bari na lool. waaye ñoom ñi nga xamante ni leer nañu ñooñu gën a jege Serigne Touba ñooñu dàqa teewlu li ñuy jàng dafa mel ni dañoo fàttali ñu fi indi woon ndax bu ñu nee dañoo jugee taxaw fële ñii taxaw fii kenn teewlootul lu ñuy jàng te ñu ne ñun ñëpp dañoo bëgg làq nga la mën Serigne Touba tey ci guddi gi damaa bëgg yaakaar ni dañoo fàtte li ñu fi indi woon wala li ñu fi bàyyi te ñun ay ndongo képp la ñi nga xamante ne dañ leen tudd di tudd Serigne ñuy jàng xasida Sëñ Tuubaa yi ñoom teewlu ba fi mu toog nii ba léegi ñu toogaayam bi defara defaragu ko ba léegi na noo xool ci moom wala ñu am wala ñu am ay teg xamante ni sax bu ñu warmaalu lu ñuy jàng sax ñoom ñu warmaal leen ñoom jëmm yi tedd yi xamante ni suñu jëmm yi xeebu yi ñoo tax ñoom ñu nekk fii war a fanaan ak ñun ba bës ñu am yeneen yi teew ñu waroon a dox ñun mel ni teewlootul lu ne dañoo bëgg Sëñ Tuubaa gëm Sëñ Tuubaa ko ñuy jàng xasida Sëñ Tuubaa ak li Sëñ Tuubaa wax ci bu ñuy jàng xasidaam yépp ñu mel ni ñun dañoo fàtte li ñu li li li li ñuy sax ndax bu ñuy jàng xasida Sëñ Tuubaa ñuy wax ak ko yuuxoo ko def yëpp nañu waxante suñu bopp rek bañ a naxante suñu moom ndax foofu Sëñ dina fa nekk te Sëñ Amsatu Mbàkke nee na Sëñ Tuubaa mu ngi ànd ak ñun ndax Sëñ Tuubaa mu ngi ànd ak ñun nañu jéem a sàmmoon teg loolu ba Sëñ Tuubaa des ci ñun te nu bu wax ji ak ak ak ak wax yoo xamante ni du dara lépp luñ fi mën a wax rek xaside suñu tubaay këpp njëriñ fuuf noo ngi ñaan ci barke xaside yi ni durus bi doon def ñu teeluwaat ko joxewaat xaside ñu konti defaraat sàppe yi durus yi di dox xaside yi di dox ngir jëmmi suñu tubaay